lycée bu Ross Béthio dal ubbi ay buntam ginaaw bi nga xamantene ndongo yi jóge nañu ci fête bu nawel ñu ubbi ko nak ci banex ak mbégte lolé nak kañu ko xamal mom modi censeur bi di monsieur Diop mom mi nga xamantene nak mi ngi ci wat ci djégo yi nga xamantene taxna nak ñu mëna ag ci bis bu mag bi ci ñom tay on a commencé dans de très bonnes conditions donc il y a suffisamment de table banc il y a le maximum pour commencer peut-être quelques matériels quelques fournitures de bureau qui restent ay rideaux ak yenen matériel mais dans l'ensemble wax tout est vraiment tout est en ordre donc le nettoyage a commencé et a été bien fait et les enseignements aussi ont commencé ce matin à 8 h donc euh, ci lolo euh, il faut que ma remercier ñep aussi ñu fi nekkoon avant-hier ci euh, rangement table, table, ci nettoyage ci déménagement yi collège campement pour une bagage fi yëpp ñu ngi leen bu ma ci biir salle gis une certaine joie pour xamantene ils sont très satisfaits ils sont très enthousiastes donc il y a un changement euh, de visage apparemment bon ils changent parce qu'il y a la nouveauté donc ce qui veut dire que certainement bon sont animés d'un sentiment de volonté certainement ils vont améliorer les enseignements apprentissage ils vont faire des efforts aussi pour faire des résultats apparemment bon il y a cette terre là qui se dégage et puis dans l'ensemble on constate que vraiment ba you kontaan nañ tey ñu ngi va et vient di di di souriant ainsi de suite les profs aussi même chose parce que c'est un nouveau site et puis ko am donc vraiment euh, li ma constaté en résumé c'est une grande satisfaction satisfaction la gis quoi lycée bi nak dalo juróom ñenti témèr ak fanweer yi ñatti élèves ñu xamante ñu sédélé leen nak ci lu tollok fukki classe ak juróom ben ki nga xamante mom modi moo jaraaf bu Ross ci bi fi nekkoon Amadou Bekay job joton té xéer wi ci atub 2020 ki nga xamante mom modi censeur bi mom moom ci wat rek jaajëfal ko yitt it wat ko ñukkal lat nak muy ci wat ci li nga xamante jaraaf bu Ross ci bi fi né tay di fali sék joton nako def té mudi ñenti témèr ak juróom fukki table ban yo xamante taxna na tey jii ñu mëna jang tambali tàmbali liggéey bi ci li nga xamanteni mom modi condition yi nga soxla inspectrice d'académie remercier Beka Diop yalla koy la aljana àjjana remercier Falis Falis Seck qui vient récemment nous donner 450 abonnements donc 450 abonnements yi moo tax tey tey ñu toxu fi donc euh, li ñu mëna wax moy euh en termes d'élèves on a 933 élèves donc bu ta bay may presque on a 16 on a 16 salles. Euh, 17 classes pédagogiques donc ce qui veut dire que vraiment on a un problème pour pour fu élèves donc euh, on est satisfait dans ce sens et les classes aussi sont de grandes salles une très spacieuses on peut mettre chaque salle 33 tables bancs donc y compris le table qui a été là donc on a vraiment on n'a pas un problème de table actuellement donc cela veut dire que vraiment euh, ci boobu ci angle boobu ñu ngi remercier Bekaay ñu ngi remercier aussi Falisek remercier inspectrice d'académie remercier toute la population de Rosbétio. Nous ñu def ay démarches les parents d'élèves les bonnes volontés nous ñëpp ñu ngi leen remercier l'école notamment l'administration reconnaît vraiment seen rôle quoi ci taxawaay Ross pour xale yi jàng bu baax pour njàng bi dem ci kanam nous ñun constate nañ ko luñ ci mën dans le bon sens nañ ko def pour vraiment njàng bi gën ca seen wàllu ñoom ndongo yi di wane rek mbégte mi nga xamante ni am nañ ko ci dalo daara ju mel nii te it di xamle rek ni tey jii nag lépp loo xamante ne coono la woon ci ñoom teggeeku na leen te it lépp loo xamante ni jafe-jafe la ñu daan jànkonte ak moom dina tax tey ñu mën koo fàtte ñuy xamle rek ni ak lii nga xamante ni moom moo di daara ju yees ji dina tax nag ñu gën a mën a amaat yeneen taxawaay jëmale nag ci seen njàng ah tey moom kontaan nañ lool kontaan nañ bu baax sax man moom damaa bég sama sama góoróom ma dama koy ree ndax tey jii am nañu lycée bi nga xamante ni ñun Ross Béthio ñoo ko moom lycée bi nga xamante ni mag ñi xale yi ndaw ñi ñëpp a ko doon xaar ak yeneen dëkk dëkkaan yi ñi dem yi dem ay comme ça dem ay ndar yooyu dem di fa jàngi jee te ko Ross Béthio am na lycée moo leen gën jóge loolu moom dañ ciy kontaan ñun waa Ross Béthio mais ñeneen ñi nekk si localité bi dinañ ciy kontaan bu baax sax lycée bi ubbeegul moom amoon nañ jafe-jafe yu bëri parce que dañ nekkoon ci collège bi nga xamante ni moomu ñu ko collège bi pour waa waa CEM bi la collège mooy CEM Imam Bassirou fa lañ nekkoon ne scientifique yi dañ daan dem ba campement campement ñëpp xam nañ campement dafa sore te daa mën nga am ay difficultés si yoon bi da ngay tardé parfois ak yooyu tey foofu dafa jógee dex gi danger bu nekk mën nga ko amoon ay jafe-jafe yu bari amoon nañ ko mais collège bi tamit da ngay nekk di jaabante si saal jàmbur saal yi nga xam ne moom moo ko mooy du am table banc yu doy. tey jii nag ñoom ñu am yéene yëkkati lycée bi def ko école d'excellence ngir nag moo xamante ni dinañ ci mën a sargal ki nga xamante ni moom moo di Amadou Bekay Diop mi nga xamante ni moom moo tegoon xeer bu njëkk wii tax nag ñu fas yéene rek def lépp loo xamante ne war na ci xar seenu tànk tubay ngir nag yëkkati turu lycée bi mu àgg fu kawe euh, comme que defar nañu lycée quoi comme que suñu autorité yi Euh, gis nañu suñu suñu suñuy ja li ñu doon jàmbat quoi li ñu doon jooy après ñu ñu ñu euh, ñu bàyyi si xel ñëw dafa ñu bijou bu mel ni euh, satisfaction lañ am quoi te incha allah résultat yi daañu daañu def le maximum pour pour ñoom ñu fier suñu aussi labo bi ah, gis nañu labo quatre labo ou bien yooyu na côté quatre labo quoi loolu moom dañ siy kontaan aussi di ñaan di ñaan autorité rek labo yi ñu bañ labo yoo xam te doo am doo am matériel matériel matériel bi ñu si soxla woon quoi dañ pour pour euh, ñun seen fii ñu mën def ay expérience ak genre yooyu noonu pour ñu jàppale ñu su quoi indil ñu matériel bi ñoo xam ne dañu mën euh, kii réaliser expérience yi pour mën a comprendre action yi. ah jox nañu lu bees quoi ñun ñun ñoo ko mën entretenir suñu bopp aussi ñuy ñuy veiller classes yi classes yi di propre ñuy ñu koy entretenir quoi. Euh, aussi suñu table banc yi table banc yi gis nañu ni mel fii kontaan nañ si table banc yi ñu euh, monsieur le maire indil aussi euh, ñu ñu ñu bàyyi si xel quoi ñu bàyyi si xel bañ ko def foowukaay wala genre yooyu noonu. ñu jàpp nag ni xat-xat boo xamante ne daan nañ ko am ci fépp fi nga xamante ne daan nañ fa dem di fa jàng ji moo xam muy CEDAF campement wala collège loolee yëpp tey teggeeku na kon nag dara waratul rek lu dul ñoom ñu am lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllu taxawaay ci lycée boobee ngir yëkkati ko te it yokk nag seen njàng ci wàllu taxawaay wi waaye tamit sàmm bu baax daara joojee nga xamante ni nag mag ñi góorgóorlu nañu ba mu agsi ci seen loxo. Franchement parlé, nous sommes très contentes. Contentes d'être sur l'ICB. parce que par avant, nous avons des difficultés pour des cours. Parce que vous voyez ben élève nga xamné day joggé santhi ba dem ba sedaf té ku Nous xamné santhi ba ak ont campement paré euh, collège on avait même des problèmes de salle de classe tey comme que tey ñun bu ñu un bon jour ñu ne ñu da ngeen di jàngee fii ñu fekk fi ay salles de classe qui sont stables des tables bancs qui sont assez bons on est très contente même franchement parler nous sommes très très très joyeux. oh franchement moom kontaan nañ bu baax ndax lii nii moom ñun ñëpp moom lañ doon ñaan moo wax dëgg neex yàlla ndaxte bu ñu nekkee collège dañ daan lii élèves amuñu salle amuñu table banc et tout ça da ngay jugee. Rose école dem Seraf jóge Seraf dellusiwaat école et tout ça wallaay tey moom kontaan nañ moom waaw mu di lycée boo xamante ne nag tabax nañ ko ci ñetti hectare mu am nag lu tollook fukki salle de classe ak juróom-benn am nag ay labo yoo xamante ni moom moo jëm ci wàllu ay bloc yoo xamante ni dina tax euh, élèves yi nga xamante ni ñoom ñoo di def série yooyu ñoom it ñu mën caa nekk waaye tamit am terrain de football terrain handball am loo xamante ne tamit lépp dafa jëm ci wàllu li nga xamante ni moom moo di éducation physique euh, wàllu sécurité bi tamit euh, dara demul mu des li nga xamante ne nag jàpp nañ ni des na foofee ca liggéey ba moom moo di nag yokk équipement yi nga xamante ne war na waaye tamit yokk liggéey bi nga xamante ni moo jëm ci travaux de défrichage yi nga xamante ne nag moom moo am foofee ci suuf si ñu fàttali nag jaraaf bu Ross Béthio ànd ci nag ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di conseil municipal bi am na ñu yéene bi nga xamante ni moom moo di tuddee ko Amadou Bekay Diop naam sax loolee jot nañ ko voté li nga xamante ni moom moo di ci conseil municipal fas yéene nag ci ay fan yu yée fas yéene nag ci ay fan yu néew rek ñu àgg ci li nga xamante ni moom moo di inauguration boobu lee